bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokk yi ñu teewlu yëpp si turu jëwriñu Cheikh Rafal ji toog di sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda. nu koy ñaanal yàlla sunu borom guddal aw fanam lool te wéral ay cëram te kàttanal ko dooleel ko ba liggéey yi jóge si sëñ Touba jëm si si moom. waxtu wu ne mu koy jekku di ko jëf na ko bi bëggee ah fasiyene jotti ni nak ndigal lo xam dafa bayiko ko ci cheikh Modou Muntaxa ñam ja jëm ci ci maam cheikh Ibrahima Fall muy mom mi nga xam mo tok di serigne Amdi Fall jaar ci cheikh Modou bashir mi nga xam mo yor kaddu cheikh Modou Muntaxa serigne bi wax ne cheikh Modou Muntaxa day yablé na fi mom demb ay ndaw ci goudi xamal ko ne ko dafa bëggoon fi di jëmi marché Ocass muy mbedd mom yi nga xamné mom lañu wax mbeddum ñaar fukki mètre ak juroom ñett mbeddum 28 mètre mu tambalé fofu yi ñi wax station essence bi dem ba génn marché bi sëriñ bi da ko jox ndigalul mu léral ko moy lepp lu bokut ci 28 huit mètres yi rek ñu jël ko fa lepp lu ne ci kaw 28 huit mètres yi loolee ñu jëlee ko fa ba mbedd mi leer nañ ah, kenn ku ne xam na ni li fi xew bëkk démb rek lolu woné na ni eh, fofu bëre bobu fu wara yaatu la té it murid dong nga ko wara def lolu nak Cheikh Rafal rek ko si doy motax mu liggéey loko Cheikh Rafal seen bi waxin ni bu nu bayiko ci liggéey bobit bu aggé wax na ni ñu jëm ci corniche bi muy corniche bu ñëkk bi corniche bu ñëkk bi dafa wax li dalé ci poste contrôle bii ñu wër ba na wër ba gédé wëri ko ba kornisu dara jorof del wat ba ndaamaatu ba ba nuy wat poste contrôle sëriñ bi jot na ndigal ci cheikh modou muntaxa lepp lo xam ni nii mi ngi ci kaw yoon wi li wet ñaari wet yi nga xam ño ñoo séq tali bi lepp lu ci nek sëriñ muntaxa jox na ndigal sëriñ amdi fall mu sëriñ modou benn di ñu maam cheikh rafal ngir fofaat ñu leeral ko ba mu leer nañ ni kon nak ndigal jipna ndigal loo xam ne mi ngi bàyyi ko sëñ Touba ñëw si maam Cheikh Ibrahima Fall euh, jëm si murit yépp nag képp koo xam ne kii rek yaa ngi jëfe képp koo xam ne ba nga sukkee di joxe sa bopp yaa waxoon ci say kàddu ne loo ma digal dinaa ko def waaye loo ma tere dinaa ko bay ndigal nag ñëw na jóge si kam war a jóge muy sëñ Touba waaye jëm si kim war a jëm nag muy maam Cheikh Ibrahima Fall muy liggéey bu màgg liggéey bu kawe liggéey boo xam ne sëñ Touba rek lañ koy liggéeyal waaye nag Cheikh mun taxaa wax ni loolu day Cheikh Rafaal rek moo ko si doy kon nag nun nu xam ne Baye Fall yi fu nu mën a ne ndigal jib na jóge sëñ Tuubaa ñëw te ndigal moom jëfe rek la noonu la ko sëriñ bi waxee sëriñ bi wax ne Cheikh Modou Mountakha jàppal na ko bis muy alti ajjuma ji nga xam ne moom la ñu jëm bu dellusee ba dellusiwaat maanaam bu nu màggalee màggalu Kazu Rajab ba bis bi dellusi incha allahu fas na yéene ànd ak mboolem njabootug Cheikh Rafaal ak képp ku nangu ndigal ñu and jëfe ndigal loolu nga xam ne moo mo mooy ndigal ndigalu Cheikh Modou muntaha moy nu berbiyo bërëb yoy yi nga xam ne lañu tuddu ñu moy léegi jëmmi marché bi mbedd mi nga xam ne moo 28 dem ba traverser marché bi ba jall ak mbedd yi nga yépp nak ay mbedd yu yu yu si ko la yii jëm gannar ak salum mbedd mu ci nek rek lu fa nek te bukk sa lolé des koy dindi bu fekkee ni ña ko fa def dindi wuñ ko laata mbooloo mi di agsi kon sëriñ bi di soññi ñam ñi nga xam ne ñoom la bokkal liggéey bi muy njabootug sëñ tubaa gi ndax dëkk bi ku fi ne njabootug sëñ tubaa nga ñu fi ñëw ñëpp la sëñ Abdou waxoon rek ku xeluwut ñëw da nga xelu ñëw ñu fi nekk nag danoo xelu ñëw loolu nag ndimbal la loo xam ne eh, ëppalee nañ ko képp ku ko amut kon nag ndimbal loolu yi niñ ciy sant yàlla sunu borom mooy dundal ko dundal gi nag mooy nangu ndigal li sëriñ bi li sëriñ bi bëgg bu nu ko xamee ak bu nu ko xamut mooy si la sunu njariñ nekk tey ak ëllëg si la sunu defaru nekk tey ak ëllëg kon sëriñ bi dafa bëgg ku am foofa bërëb wala nga am fa ay loo xam ne ay ay ay ay jumtuwaay la wala nga am fa loo xam ne ay bagaas la yoo xam ne bëggoo mu yàqu euh, sëriñ baa ngi sàkku bala nu faa egsi ñu jëfe ndigalu Cheikh Modou Mountakha kenn ku ne la nga fa am nga dind ko ba mu leer nañ ba mu set wicc kenn ku ne nag xam na ni lay fay yoon la fa jaadu kenn ku ne xam na ko ku tege si kaw yoon wi xam nga ni yaa ngi si yoon wi ku jël lu ëpp si li nga war a jël xam nga ni jël nga lu ëpp ku karole wala nga def trottoir ba mu jéggi ba mu àgg sa tali ba xam nga ne jël nga loo moomut sëriñ bi nag sàkku na képp koo xam ne am nga fa cantine maa nga am fa magasin maa nga am fa palaas taabal maa leen lu mën a doon sëriñ baa ngi sàkku Bala aljuma jaww ji nga xamne mom lañu tuddu nga jël ko ba mu ko fa ngir bu nu egsee fas nañ yéné jëfé ndigalu Cheikh Modou Mountakha muy léral mbedd mi ba mu leer nañ ni léralit it mbedd yi nga xamne ne ñoo féete Saloum ak ak gànnaar muy muy muy voie latérale yi ñoom dess nako léral ba nga xamne marché bi dal exé fi dina doon lu jappandi si wét goju jóge rek. ni nga xamne non lañ ko non lañ ko saytoo won sa njalbeen nga wet goo jugee da nga mën a tàbbi si biir marché bi te doo am benn gàllankoor su boobaa nag kenn ku ne dana daal di natt si am xelam lii sëriñ bi faggul lan la nu jural njariñ li mu ju jural ak tawféex gi mu nu indil boobaa kenn du ko nettali kenn kenn ku ne yaa koy xamal sa bopp jëfe ndigalu sëriñ bi si la suñu defaru ne si la suñu njariñ ne si la suñu texe ne si la suñu uh, wërsëg ak suñuy xéewal lépp si jëfe si ndigalu Sëriñ rekk si la ne kon sëriñ bi mi ngi soññ ñëpp nag ñu delloo si waat seen xel si loolee xam ne jëfe ndigali sëñ tubaa moo nu fi indi te moo nu fi bàyyi ndax sëñ tubaa la nu jaayanteel sunu yaakaari tey ak ëllëg dara génn si sëñ tubaa sunu yëngut ak sunu dal sunu tey ak sunu gannaaw bakkan amuñu lenn lu ñu yaakaar loolu du sëñ tubaa kon nag koo kii yaakaar nag moom moo santaane te waxtu wu ne li nu diggee moom mooy lu mu nu digal nu def ko waaye lu mu nu tere nu bàyyi ko kon ndigal li sëriñ baa ngi sàkku si mbooleem ku dib taalibe te nekk sa bërëb boobee nga nga nga nga nga am si te ju mat sëkk mooy taxawaay bi nga xam ne moom la ko sëriñ bi bëggee suñ sa àggee ñun ñëpp nu àndandoo jëfe ndigalu sëriñ bi suñ noppee nag taal toog dëkk ko suñuy loxo mu neenal nu xam ne lépp lu mu def rek moo gën lu mu defut kon loolu ñëpp xam ko incha allah lu weesu tey jii des na tàmbali di ko yaatal yëgle bi ba képp koo xam ne kii am nga bërëb bude Sibir bir marché bi la wala képp ko xam ne ci kaw corniche bi li wër corniche bu ñëk bi te nga jël nga si lo xam ne ak la nga mom ah nga yëg ko ba kenn du ne yëguma ko woon su ko défé sëriñ bi nak la ko gënal moy bala no ag sa bis bobé kenn ku ne la nga sa am te mën ko dindi te jaarul ci yoon nga dindi ko ba bu nu accès du nu fa fekk lenn lo lu nuy galankor la sëñ baa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant du mun Modou Mountakha si ndigal lii nga xam ne moom la ko joxaan nag te xam ne ndigal dong moo nuy jariñ di ñaan yàlla nañ ci tàbbi ak jàmm te defe ko ni ko sëriñ bi bëggee ñun ñëpp ñu am tawféex kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.